ci Faye ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi leen di fay di leen sant di rafetlu itam seen liggéey ci Rewmi FM. ngay coordonnateur pôle des non-alignés ñu waxtaanee ci ndaje bi nga xam ne àjjuma ji euh, dinañ ko amal waxtaanee li jëm ci législative bi caution bi rawatina euh, ñu dégg leen ci yenn euh, lan mooy problème bi justement waaw xam nga <coughs> mbir mi da bi nga xamee ne ñu ngi ci waxtaanu dialogue politique bi. Mm-hmm. Euh, dafa am ay tomb yoo xam ne dañ ci doon waxtaan. Mhm. bokk na ci mbiru parrainage bi ak mbiru caution. Mhm. ñun euh, ñu jàppoon ne euh, élection locale ak élection législative dana jafe ñu doxal ci parenage boo xam ne du indi coow. Mhm. ñu jàpp ne ndegem li tax ñuy def caution ak di indi parrainage mooy rek ñu fexe ba li mu list yi bañ a bari noonu. jàpp nañu ne caution bi war na koo mën ndax bi ñu jógee ci élection locale yi mhm. bu ñu xaymaa ni mu demee ñu xam ne foofu amul woon parrainage mhm. caution rek la amoon te terewul list yi ñu am may nañu ñu mën a dem élection yi te benn jafe-jafe amul mhm. kon moo tax nun ah, moo tax nun euh, ci dialogue politique bi ñu waxoon ne ni ñu supprimer ni ñu dindee parrainage ci élection locale yi. Mhm. bu ñu bëggee dal bi gën a yokku. wóolante bi gën a yokku ci biir acteur politique yi. Mhm. noonu la ñu war a dindee parrainage ci élection législative. d'accord te bàyyi fi rek euh, caution. mu mel ni beneen filtre lañ leen di waajal jamono ji. waaw ndax xam nga bu fekkee ne euh, parrainage bi dafa am euh, caution bi am. Mm-hmm. kon dafay am ñaari filtre ñaari seggukaay yoo ñaari mbir yoo xam ne ñoom ñooy segg candidature yi. Mm-hmm. donc fii bu fekkee ne jàll nga fa boo demee fale mën nañoo dàq sa liste. te euh, boo seetee li xew élection présidentielle. Mm-hmm. nga xam ne li ñu dàq ci ay list kenn xamul moo ëpp fuuf li nga xam ne moom moo jàll. loolu bu ñu ko bëggee def ci élection euh, législative yi mhm. jafe-jafe lay indi fitna lay indi te Sénégal toll na foo xam ne ci wàllu élection def nañu mhm. jéego yoo xam ne waratuñu mukk di teg benn euh, pexe mhm. boo xam ne day tax ñu dellu ginnaaw kon yéen seen proposition cinq millions ci kaw euh, bu ñu génnee parrainage fii la c'est-à-dire bu fekkee ne parrainage bi nanguwuñu koo génne boobu la ñu wax ne. Mhm. Euh, parrainage euh, caution bi warta weesu cinq millions. d'accord léegi nag bu fekkee ne waxtaan nañu. ba wax ne parrainage bi nañ ko dindi. Mhm. bu keroogee dinañu mën a ci kaw consensus xayma li nga xam ne loolu moo war a doon caution bi. te yow am nga yaakaar ne waxtaan déggoo dina am seen digganteeg opposition jëm ci génne parrainage waaye it fixé caution. bon euh, du du yaakaar sax de di loolu moom mooy li gën. Hmm. te yaakaar naa ne ginnaaw président de la république waxoon na ministre de l' intérieur ne na xayma élection euh, locale yi ni mu demee. Hmm. jàpp naa ne ministre de l' dana xam ne euh, parrainage bi ñu dindi ngëneel rek la am la indi ci élection locale yi. Hmm. te buñ buñ ko dindee ci élection législative itam noonu rek lay demee nit ñi danañ dem ci élection ci jàmm. Euh, élection yi passé nit ñi da jubluwaat ci yeneen i mbir ci seen liggéey. tey jàpp euh, parrainage euh, mu am ci bii élection ndax du violer loi ndax saisir nañu li nga xam ne mooy CEDEAO di xaar nag dogalam. cest dire xam nga CEDEAO. Euh, moom euh, ay euh, recommandation lay lay lay def. lay def tey loi bi nekk en vigueur. Mm-hmm. bu fekkee ne saisi am na ku saisir CEDEAO. Mm-hmm. te CEDEAO waxagu ci kon dafay mel ni loi boobu dafay nekk en vigueur. Mm-hmm. waaye nun acteur politique yi. protocole CEDEAO dafa wax ne bu ngeen waxtaan bu fekkee ne acteur politique yi waxtaan nañu ba juboo ci mbir. loo xam ne dafay war indi changement ci code électoral bi mhm. bu boobaa mën nañu indi changement ci code électoral bi li ñu bañ daal mooy dem ba élection yi jege ab gouvernement jël dogalu boppam changé code électoral waaye bu fekkee ne waxtaan la ba juboo loolu moom euh, waa CEDEAO duñ ci duñ ci wax dara tey lan mooy njeexital justement parrainage googule ci euh, jeu jeu démocratique bi bon xam nga parrainage bi euh, ñoom euh, liñ ci jublu woon mooy jàpp gis ne liste candidature yi dafay bëri. Mm-hmm. ñoo ne xëy na bu ñu defee parrainage dina wàññeeku. Mm. Euh, waaye boo xoolee li xew élection présidentielle ci li ñu dàq ci ay liste ak coow li mu jur ba tax ba nga xamee ne élection yi sax jàll na daanaka kenn nangut a félicité ki gagné. Mm-hmm. loolu yi baaxul ci am réew. Mm-hmm. kon li nga xam ne moom moo am solo mooy lépp loo xam ne loi la boo xam ne moom mooy doxal élection dafa war a doon loo xam ne ni ni dañ ciy waxtaan ba juboo mhm. bu ñu ko defee rek lépp loo xam ne génn ci ay résultat nit ñi dañ koy nangu te benn na du am mhm. te comme ni ma ko waxee tey bu fekkoon ne élection euh, locale yi jàll mhm. dafa euh, jafoon a organiser boola mu am fitna bu ci am kon ñu mën a wax ne a ah, comme jafe-jafe amoon na ci kat nañu indi ay sopar sopparñi mhm. waaye ginaaw jafe-jafe amul te li gën a tax jafe-jafe boobu amul mooy parrainage bi ñu dindi jàpp naa ne euh, enjeu bi yëpp mooy nañu def ba dindi parrainage bi ndax sudul loolu loolu ñu indi fii fitna boo xam ne du ko jar ndax danga nga ay liste fii yoo xam ne ay manifestation ak coow rek lay jur d'accord tey bu parrainage doon am euh, nan lay demee nga expliquer ñu un peu processus bi waa parrainage bi de ni muy demee mooy euh, bu ñu defee révision list yi ba xam ñi war a wote ñaata lañu. Mm-hmm. ci la ñuy jël euh, pourcentage boo xam ne mu ngi diggante zero virgule cinq ak zero huit zero virgule huit pour cent. Mm-hmm. nga xam ne lim ba muy joxe la ñuy wax ne ku bëgg a bokk ci élection yi da nga am lim bu toll noonu ci ay signature. Mm-hmm. te ci lim boobu. dana am gën jaaneew juróom-ñaari région mm-hmm. ci fukki région yi ak ñeent juróom-ñaari région yoo xam ne région bu ci nekk mm-hmm. da nga am junni signature foofa mm-hmm. noonu lay deme lii eh, loolu nag boo ko dajalee ba pare dafa am commission boo xam ne moom moom la ñuy euh, formé commission boobu ministère de l'intérieur formé ko foofa ñoo ñoo jot signature yi contrôlé ko ba xam ndax lii baax na wala baaxul te jumtukaay biñ koy contrôler ndegem nit ñi waxtaane ko ba xam ne jumtukaay bi nii lay doxe bu ëllëgee daanaka ku ñu dàq sa liste tam da ngay bëgg da ngay wax ne man moom dañ maa bëgg a éliminer rek waaye du dàq bi teguñu ko fenn. lan dafa am lu ngeen bëggoon soppi ci doxin bi. ah da am lu ngeen bëgg a soppi ci doxinu parenage bi. waaw doxinu parrainage bi moom. li gën a li gën a simple ndax mbir mi jàmp na. Hmm. li gën a simple au lieu kon ñuy woote waat di waxtaan naan oh, euh, euh, kii euh, kii méthode de de validation bi. Hmm. logiciel bi ñu di ko gëstu di ci waxtaan ak yooyu diir bi muy jël dafay yàgg. Hmm. kon li gën a simple mooy élection locale yi am na sans parrainage te benn jafe-jafe amul. élection législative yi nañ ko def sans parrainage. bu jàllee nag leneen lu ñuy xayma le logiciel bu ñuy teg ba di ko xayma di ko natt di di ci waxtaan pour juboo mhm. booba nit ñi dina am jot waxtaan ci logiciel yooyu waaye fii ñu toll mbir mi xat na te bu xatee jël mesures yi nga xam ne ay mesures urgentes la. Hmm. moom moo gën a noppal ñëpp. monsieur Faye ñu seetlu ne euh, ay jamono ngi nii euh, dafa mel ni dañuy segg candidat yi di tànn ñoom euh, ñi ñuy ñan ñan ñoo war a jongante ci ay élections ndax li ni mel day dox ci démocratie. non c'est-à-dire xam nga démocratie moom dañoo li ci li ci li ci jaadu mooy boo bëggee bokk ci ay élections nga bokk ci ay élections. Hmm. boo ci bokkee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy wote ñoom ñooy àtte bu ñu àttee lu ñu la jox nga xam ne lii nga mérito mhm. loolu nga loolu nga am nga mhm. nga nga nga jàpp ci loolu yem te xam ne loolu la démocratie laaj mhm. waaye démocratie bu fekkee ne nit ki léeg-léeg dañuy dafay jàpp ne dañ koy xañ sañ-sañam loolu moom mooy indi euh, ay jafe-jafe ak ñàkk a ci ci ci ci acteurs politiques yi te loolu jàpp naa ne Sénégal tey def na ay jéego élection locale yi wane na ne Sénégal def na jéego yu am solo mhm. jéego yooyu nag dañ koo war a dëgëral dañ koo war a baral dañ koo war a sàmm te moytu lépp loo xam ne dina ko dina ko yàq tey lan ngay xaar ci législative yi pour wax ci enjeu yi daal euh, législative yi euh, liñ ci enjeu yi mooy rek fexe ba euh, fal ñoo xam ne ñu demee assemblée nationale duñ fa nekkal parti duñ fa nekkal dara réew mi lañ fay nekkal. Mm-hmm. di défendre intérêt réew mi loolu moom mooy cëru assemblée nationale loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu ci képp koo xam ne fal nañ la député. Mm-hmm. te jàpp naa ne euh, mbir mi nii muy deme ak changement yi nga xam ne mu ngi am progressivement ci opinion ni ci xalaatu nit ñi ak nit ñi ni ñuy gisee. Mm-hmm. yaakaar naa ne loolu euh, moom dana gën sax ci biir euh, réew mi. ndax euh, dootuñu gis defe naa ne koo xam ne wóor na leen ne kii euh, mbiru réew mi ñoru ko. Mhm. Euh, ñu koy fal assemblée nationale. ci changement yooyu le comme ci jàngat li ñu gis ci local yi gis nañ ne ndaw yi dañ leen a gën a dugal ci lii di gestion de la cité maanaam ci politique bi ndax njortoo ne li ni mel la ñuy wëyal ci falum député bi. waaw loolu jàpp naa dafay dafay ndax. Euh, li ko waral mooy euh, am réew bu fekkee nit ñi dem nañu ba euh, seetlu ne démocratie ba am na côté yoo xam ne na muy doxe wuute na ak la ñu doon seenu mm-hmm. bëgg changement dafay yaatu ci biir nit ñi mm-hmm. te bëgg changement boobu yaakaar naa ne moo indi béréb yu bëree bëri mm-hmm. ndaw ñi am fa doole ci pal gi ñu passé ñu lay jaajëfal bu baax a baax monsieur Faye euh, Déthié Faye yow ngay uh, coordonnateur pôle des non jërëjëf maa ngi leen di sant di gën gërëm waa Rewmi FM yëpp. Mhm. di rafetlu seen taxawaay ak seen liggéey. jërëjëf.